asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem képp koo xam yaa ngi topp suñu site bi di 94 Walf euh, Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne dañ koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal te di leen ah entreprise yi moom ah ah daa mel ni li dégg moom dëgg la wala du dëgg cay gaay waaw Sidima Sidima da xam nga ne moom ku nekk xam nga ne moom Babacar Ngom moo ko moom. Euh, mu ràññeeku woon lool nag euh, euh, ci réew mi voilà muy yor ay cuuj ak i ginaar ak i mu nekk koo xam ne xam nañ ko ca suufus ndengeleer coow la fa amoon Babacar Ngom am Babacar Ngom indi Babacar Ngom voilà société yi moom dafa am ci yoo xam ne moom dañ ko bëgg jaay wala maanaam lan la ah xëy na seeni borom danañ génn leeral voilà moom dañ ko bëgg a jaay ah kan fan la ñuy jëlee ay cuuj ak i nen nag gars yi ak i ginaar ah yaakaar naa ne nag kan liñ naan nag impôt yi ba dafa def effet ma yi ba dafa def effet wala gars yi ñooy commentaire rek ah wax dëgg yàlla de eh, Babacar Ngom moom xam nañ ko doomu réew mi la ah wax dëgg yàlla nekk ci réew mi di yar ay tuuti ki ginaar ak i nen yaakaar naa ne ñi nga xam dañuy yar ay élevage daal ak i ginaar ak yooyu ya ca ya caaju daal Babacar Ngom moom yaakaar naa ni ràññeeku na ci bu baax a baax a baax a baax ndax société bii nii di sidima voilà léegi nag euh, lu ci mën a am rek mooy xam nga euh, njiital entreprise bi moom muy Babacar Ngom yaakaar naa ne ku nekk xam na ni moom entreprise bi moo ko moo ko moo ko moom waaye lan lu tax ñu koy jaay waaw dëgg la wala lu dëgg xëy na moom dana ci ay leeral waaye daal lu ci mën a am daal mooy euh, impo moom ah impôt du ay caaxaan de rawatina nag nga amal ci Sénégal lu bare bare bare yaakaar naa loolu moom bu fekkee mënoo ko fay moom jaay entreprise bi dong ngay mën a def waaye nag loolu est ce que nekk na li nga xam ne lu am la voilà beneen bi ci des tamit mooy doomam ji nga xam ne moom doon na fi laaj Ousmane Sonko ak Diomaye ñoom ñoom ñooy kan voilà kan mooy Diomaye kan mooy Ousmane Sonko xanaa léegi war nga leen a xam ci jamonoy campagne bi wala boobu da nga doon gën a wut tur rek voilà ah wisit kii Ousmane Sonko. visite kii ah pour Diomaye voilà Diomaye Ousmane Sonko ñoom ñooy ñan ah yaakaar naa ne fi mu toll nii war nga leen a xam ndax ñoom fi mu toll nii ñoo jiite réew mi voilà euh, bu dee président Diomaye Bassirou mooy président bi mooy premier ministre bi comme yaa ko doon laaj euh, te yaakaar naa ne fi mu toll war nga leen a xam voilà Ousmane Diomaye Diomaye Ousmane yàgg nga koo voilà entreprise bii nag wax dëgg yàlla warul daanu warul daanu warul leen koo jàpp